mbokki jullit yi mbokki taalibe yi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonenteem ba sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul suñu yaakaar tey ak ëllëg noo ngi ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér ba lim naal liggéeyal ko sëriñ Touba ak Serigne Bassirou waajuram ba mu defee ko nu mu ko soobee ci barke borom Touba noo ngi siyaare bu baax ak ñaanal Serigne Ablaye Touré ca Daaru Ja moom Serigne Ousseynou ñoo ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam di siyaare bu baax sëriñ Moussa ca Mboro di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam sëriñ Mudu ca Daaru ñoo ngi koy nuyu ak njabootuk sëriñ Ousseynou gépp ak waa Njar ñoo ngi ñaanal ñëpp maa ngi nuyu bu baax sama wasila sëriñ Mbàkke Kan moom sëriñ sa deex moom sëriñ Mor Kumba Kan lay maamun siin sa sayer samba soom ñanga ama amin taminte gay fanjaay turu jax rew ba kan jàllo jiiri seeri sa ngoone daamit tumaay si yàlla yàlla guddal fanam waaye di saare bu baax sëriñ Mamor Mbakke moom sëñ Mudu bu sa jëg moom sëñ Fallu ñoo ngi nuyu bu baax sëriñ naa moom sëñ Sidi moom Seex laat waaye sëriñ Fallu Sidi da koy saare bu baax saare bu baax sëriñ Moussa Diop petub Seex Ibrahima Diop almazanri ba ñoo ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam sëriñ Moustapha Guèye ca Saam noo ngi koy nuyu ak njabootug sëriñ Mabé Guèye gépp di la ñaanal jàmm ak tawféex sëriñ Xaadim Jeng borom def gis noo ngi koy nuyu ko jàmm ak tawféex Cheikh Abdou Lahad Seck góor yàlla fàttewuñu la noo ngi ñaanal ñëpp tey siyaare ñëpp mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu mission bu mag bii nga xam ne dellu siwaat nañu àndante ko ak muy waxtaane ak bokk ngeen di ci ànd ak Baye Cheikh ña ngéwalu Cheikh Mamadou Fadal ci télé bu mag bii di ak ci nu tàmbali woon ko nag andi woon première partie bi avant première bi ci maam maaram waaye boobaak léegi nu nekk ci ay installation ak ay tuxu waaye dellu siwaat nañu nag àndanteeg yéen waxtaane ak bokk waxtaane réew mi ñu andi nag maam waaye ñu am luñ ci dolliwaat rek ndax maam mooy Sénégal waxoon na ni mamaaram ñi mu jëloon waaye dañoo yemoon ci soxna Aysa Kani mu jëlee soxna Aysa Kani da ci am maam Mballa maam Mballa nag moo meññ maam Mor Anta Sëli maam Mor Sëli meññ xaadim borom jumaa ji maam maaram Mbakke talal loxoom jël Farimata Sekk am ci Cerno Farimata ak Ahmadu Farimata Cerno Farimata moo jur mati joosi ñu naa ko mati Mbàkke ñu yóbbu ko gaaya jox ko tafsir Demba Buna Baasin moom ca maam Ousmane maam Ousmane nag moo meññ Alxaaji Malick diggante Serigne Touba ak Alxaaji Malick nag foofu la ñu daje ci maam Maram maam Maram dafa am fu mu daje waat ci réew mi ci bokk ndax maane ak buuna noo bokk ndey ak baay maane moo jur aysa aysa jur mam balla buuna jur tafsir demb buuna baasin tafsir demba buuna baasin moo jur maam Ousmane ak maam Ahmad si ak maam baasin si loolu nag mooy li nga xam ni andiwaat nañ ko ci maaram maam maaram Mbàkke tàllal loxoom jël af sa njaay am ci sëy na bu af sa njaay sëy na bu af sa njaay nag moo jur Marema Seck ak Ahmadou Seck Ahmadou sekk nag moo jur Khady Seck Khady sekk nag moo meññ Serigne Moussa Ka jàmbaar jooju nga xam ne lu ne wax na ko sëriñ Touba moog sëriñ Touba na bokk maam Maram maam Maram loxoom jël soxna Awa Ñang am ci soxna Mbacke Awa Ñang Astu Mbacke Awa Ñang Khady Mbacke Awa Ñang Ibrahima Awa Ñang Astu Mbacke Awa Ñang moomee nag dañ koo dénk ku ñuy wax sëñ Ahmadou Ñang moom ca ku ñuy wax Serigne Afe Ahmadou sëriñ Afe Ahmadou moomee nag jël jigéen ju ni wax soxna Kumbaan Mbakke soxna Kumbaan Mbakke Ahmadou soxna bu soo ko jur Ahmadou soxna bu moo jur soxna Kumbaan Mbakke ak Astawaalo Mbakke ak Afsalaw ba Mbakke biñ ko ko joxee nag moom ci Abdou Kumba Aan Abdou jël jigéen ju ñuy wax soxna Awa Buso am ci sëriñ Afe Ñang sëriñ Afe Ñang moomee nag mook sëñ Fallu ak soxna Marema Kunta noo bokk wenn wajuru jigéen muy soxna aw Bousso te bokk nu baay waaye sëñ Afi Ñang moo jur sëñ Muudu Maamun Ñang meññ sëriñ Xaadim Ñang sëñ Xaadim nag moo meññ sëriñ Jiili Ñang kennal sëriñ Touba jàmbaar jooju nga xam ni lislaam jëmm ko àdduna bépp xam nañ ko sëriñ Jiili mu nekk ca Bustaanul Aarifina di faj soxla kennal sëriñ Touba maamam ju baax jooje no ngi koy ziar bu baax Amara Mbakke moo jur soxna seer soxna Bousso seer soxna Bousso nag moo meññ ku nuy wax sëñ Seydou Mbacke ñu naa ko sëñ Saxiit sëñ Saxiit moomee moo meññ sëriñ Mandumbe Mbacke borom xabbu ga ca dende yi sëñ Mandumbe jaboot gi macha allah waaye dafa càlloo sëriñ Abibu Mbacke sëriñ Abibu nag mooy bàyyu sëriñ Maam Mor moom sëriñ Abibu mooy bàyyu sëriñ Cheikh Badar ca Saam noo ngi koy baax noo ngi koy jox wàccuwaayam loolu nag. mooy li nga xam ni moom lañ indi ci maam maaram di ko ci yokkaat waaye nag néegub ku tedd ki Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasuul rek lañ ciy sof ndax kuy tàmbali rek ci sëñ ngay tàmbalee ci sëñ Bamba ngay yem néeg bi mbokk mooy néegub gonjox ndax wax naa leen ni ab jaafuñ am na ab jaxrew am na daroobe am na ab sin am na wégéj am na aayal am na waaye néegub ku tedd ki Xaadim Rasuul ci lañuy ñuy tàmbalee muy sëñ Bamba ñetti maam yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay jaxeer bajaan Paan Badiane Daaro Badiane Mberse Gaan Diouf seen bàyyi burub séeréer la Koddu Jóoba ko jur Mbend Njaay Kumba Malick Taayum Baal Paalum Doom doomu Sidang Sidang Dang sëñ Bamba Xaadim Rasuul soxna jaara la ñuy wooye waajuram soxna jaara soxna astawaaloo ko jur soxna astawaalo ndumbe daano ndumbe daano Penda Kamara Penda Kamara Anta Touré Anta Touré cekka joor cekka joor joor paan joor paan paan bajaan mu ñibbi nag ci néegub gonjox waaye sëñ Bamba dafa bokk ak ku ñuy wax Baye Jili Mbay am néeg Baye Jili Mbay nag ku ne xam na ko ci réew mi bay Cheikh Mbay la bokkal mooy wajuram noo bokk néegub gonjox ñoom ñaar Baye Jili Mbay madamel ma Jéey mooy maamam moo jur Gumba Faali Anta Sëy mu jur alaj alaj jur Samba Daaro Samba Daaro même jël ay sama mbay am ca xëri Samba ak Fat Samba Touré baa jili mbay xëri Samba ay sama mbay ma Mamay Anta Diagne Binta Diop soxna ñaan kandi kandi baro baa jili mbay ñi ma ko waxe léegi Njaxeer Badiane ak Paan Badiane noo bokk ndey ak baay di maam yoo xam ne noo toppante Mbersegaan Diouf seen baay buurub séeréer la Koddu Jóob ko jur Benn Njaay Kumba Maalik Taayum Baal Paalub Doom Doomub Sidang Sidang Dang Sëñ Bamba Xaadim Rasuul Soxna Jaara Soxna Jaara Asta Waalo Asta Waalo Ndumbe Daanu Ndumbe Daanu Penda Kamara Penda Kamara Anta Touré Anta Touré Cekka Joor Cekka Joor Joor Paan joor paan paan bajaana ko jur waaye dafa bokk ak nag bàyyi ji mbay am néeg bàyyi ji li mbay madamel fan ma jéy la ni wooye maamam moo jur gumba faali ant sëy gumba faali ant sëy jur alaj alaj nag moo jur sàmba daaro sàmba daaro moo may jël jigéen ju ñuy wax ay sam mbay am ci xëri sàmba ture ak fat sàmba ture bàyyi ji li ay sama mbay ma mbay anta jaañ binta jóob soxna ñaan kanni kanni baro kuro yaasin yaasin jeng jaxeer bajaan waaye xëri Samba Touré ak Fat Samba Touré noo bokk Fat Samba Touré nag moom meññ ku ñuy wax Baye Makka ture moom itam ab gonjox la ak njabootam ñu ngi ci Touba ajaratu njoxat ture ñoo koy nuyu ak ñi mbokkal Baye Makka sëñ Fallou waaye soxna Ayda fàttewuñu ko ñoom itam ñëpp seen mbaajur wa ak sëñ Bamba noo bokk am néeg Baye Cheikh Mbaye Khadija Jiyee Touré Jama Diop Khoudia Penda Asta Seck Jiyee Touré Daaro Badiane waaye Amadou ma Khouréje nag mook Serigne Bamba noo bokkam néeg Amadou ma Khouréje ak Lat Joor noo bekk benn baay saa xewar fax na mbay la seen baay tudd Medun saa xewar saa xewar Fatma Amadou ma Khouréje ma Khouréje Faal a ko jur ma Khouréje Faal bale ñaan jeng bale ñaan jeng aminta soxna ñaan aminta soxna ñaan soxna ñaan soxna kandi kandi baroo ko jur kuro yaasin yaasin jeng jaxeer bajaan paan bajaan daaro bajaan bokk ndey ak baay seen baay buur séeréer la woon mbersegaan juuf la ni woowee seen baay bokk yi nag loolu lañ andiloon tey seen émission waxtaane ak bokk andi lañ lenn ci maam maaram waaye wax leen néeg bi nga xam ni sëñ Bamba ci la bokk ndax néeg yi danañ ci ñëw waaye moo tax ñu jëkke sëñ Touba Xaadim Rasul seen émission bu mag bi nag ngeen di ci ànd ak Baye Cheikh ña ngi géwalu Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ci télé bu solo bii bu yaatu bii bu solo bii muy 24 actu ngeen di ci ànd ak nag seen caméraman Serigne Modou Diouf jàmbari Serigne Touba waaye jàmbari Serigne Mandoumbe ci caméraman bi directeur programme Mame Thierno Faye ngeen ci àndal waaye montage bi nag ñu ci ànd ak ah Serigne Mbaye mooy monté émission bi ki leen koy présenté nag mooy Baye Sax Ñang géwalu Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mbokk yi ñoo ngi leen di jox rendez-vous alxames bu jot daanu tànn ay jàmbaar waxtaan ci ak bokk leen bokk ci réew mi ndax Sénégal lépp benn bokk la nit ki nag soo ko xamee sa mbokka waaye boo demee ba xam li nga bokk ak moom dootul sa bokk sa boppa kon nag bokk yi noo ngi leen di tàggatoo alxames bi di ñëw bu dellu see incha allahu rabbi nu war a waxtaanee nag jàmbaar maam Cheikh Ibrahima Fall lamp babil mouridine ahmadou fall seere ndiaye biran jibi ca ngaay ñoo ngi leen di jox rendez-vous ak seen télé bu mag bi muy 24 ak ak sëriñ Modou Diouf si caméraman bi ndongal sëñ Mandumbe Xabbaan borom xabbu ko ci dendey wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu